salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokki internet Dakar Midi ñu ngi nuyu ñëpp di char ñëpp di bëggee ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay saa su ne ak ni koy defee euh, seen émission terminalu aar bi kër géwél yi ëttu ndaanaan yi ndaanaan bi ñu leen di wan ndaanaan bi ñu leen di présenté ndaanaan bi nga xamante ni ne tey moom lañ di indil ngeen consommé ko kooku nag tey benn la ci benn ci biir ndaanaan yi euh, doomu Grand Yoff doomu Arafat xale boo xamante ne nii soo ko fekkee ci bongo yi sa xol sedd soo ko fekkee ci ci sabar yi sa xol sedd soo ko fekkee ci jaxarlu yi wala ci tuur yi wala ci tànnbeer yi wala ci mbapat yi wala ci simbu si sa xol sedd xale bi nga xamante ne nii car macha allah wante nag soo ko fekkee ci biir soirée yi fekk ko ak groupe am ak orchestre am sa xol foofu lay gën a seddee parce que da nga naan foofu la munee fekk xale bi fépp la munee macha allah mbapat na job na ba egsi fi mu egsi tey marqué na empreinte tey ci réew mi tey ba am groupe boppam am yëfu boppam di demal boppam xale boobu mooy kan ah, dañ koy bàyyi mu nuyoo sant yu wax leen mooy kan aada ñu ngi leen nuyu. waa Ndongo maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay di la bëggee. Mm-hmm. Ah, di la jox sa bu baax a baax. waaw mm-hmm. ah, ginnaaw ba ñu sant yàlla di nuyu suñu ñaari waajur yi. waaw mm-hmm. di bëggee fan si. di bëggee waa Grand di bëggee àdduna tamit. léegi ñi nga xamante ne nii eh, bëgg nañoo xam kan mooy aada aada géwél la wala aada géer la wala aada dafa wàlle yaan si mën nga ñoo wax kan mooy aada waa aada nag mooy ndaw bi nga xam ne du géwél du gaawlo mm-hmm. ab géer la rek mm-hmm. waaw yàlla def si moom ay way mm-hmm. waaw muy jëfee way ji si am ay fans ñu may teral di ma sagal di si am tamit ay ñaan yu bëri mais buñ bëggee xam ah, ban année nga dugg ci ci ci woy bi yàgg na am yàggul waaw way mi yàggul 2020 laa si dugg 2020 laa démarré 2020 laa démarré di wayantu ay simbu mbapat ba ba nii nii yàlla di def waw ñu ngi def ay soirée chaque quinzième samedi mhm. ñu def tous les samedi tamit mhm. waaw ay soirée di dóor mi daanu mhm. di takkale rek daal nekk si ginnaaw gaay yi waaw takkale ci ginnaaw gaay yi mais da nga bopp wala yaa ngi ci ginnaaw gaay yi ba léegi non am naa sama yëfu bopp mais boo déggee ma la maa si ginnaaw gars mhm. damay tarbiyu si ginnaaw ndaanaan mhm. waaw parce que Adama mooy ki nga xam ne mooy le bébé mhm. de la musique sénégalaise waaw am sa orchestre am naa sama orchestre bopp quinze vingt et un groupe quinze vingt et un maa ngi leen di nuyu au passage ah waaj waay ñoom tamit ñi nga xam ne aada fu mu dem fu mu dem ñu ngi si ginnaaw aada lu aada di def ñu ngi si ginnaaw aada di bëggee waa estaf yi tamit waa estaf waa aada famille ku si mel ni lay Lay Fall ku si mhm. mel ni Adama Sène mhm. ku si mel ni Bakary ku si mel ni Baye Sall mhm. ah, su ma limee damay juum di nuyu ñoom Koddu ñoom Amina ah waaw jigéen yi góor yëpp daal maa leen ni bëggee waaw ku lim da ngay juum ku lim da ngay juum mais woy bi woy bi nu duggee da nga ko jàng wala da nga jéggi saa rek mu dab la wala ci fan la la fekk bu dugg waaw woy bi daal amour la ko woy bi amour la amour bi nga xam ne yàlla ko def si man woy bi na ma lu bëri yàq na jàng bi yàq na lu bari yàq na ay liggéey waaw mais way mi tamit yàlla moo yàlla mooy def lu ko neex si jaamam mhm. mu def ko mhm. kon moom way mi tamit la ma jagleel ma bàyyi si jàng mhm. dugg ba ni may wax ak yow nii maa ngi si daal di góorgóorlu di takkale di faayet nekk si ginnaaw gars yi waaw mais à part woy bi avant woy bi da amoon métier wala da nga doon waaw jàng naa jàng naa ba classe quatrième bàyyi bàyyi waaw après c'est la bàyyee woy dugg métier def carénage Carina defuma si un an sax bala su ma defee un an un mhm. laa si def yàggul ma duggantu si way bi waa Garaab di ma dooleel mariage yeeg ngénte yeeg simb seeg concert yi lépp ma koy toj. Mhm. ba tey jii nii nii nii mhm. jaar nga ci aw. waaw jaar naa si aw. yan nga jot aw. waaw aw naa aw naa moom itam maa koy bëggee aw naa ko pentola. aw naa memba waaw memba daal laa aw. Memba daal loolu nga aw ci groupam nga jaar daan ko kër waaw si groupam laa jaar hmm. daan ko kër jaar naa tamit si groupe Thiol Mbaye moom itam hmm. maa koy bégee bu baax waaw hmm. mais mais jaar ci woy ay cant wala woy ay simb mbapat euh, kasak yu mel noonu ay làmb yooyu jaar nga ci wala jaaroo ci waaw si cant nag laa jaar si cant laa njëkk cant laa njëkk def way cant waaw way cant moo tax sama gën a bëgg bàyyi jàng pour dugg si way waaw waa coor maa ngi leen bu baax donc cant ñu mënta am chaque année maa koy maay def première partie maay def première partie doon cant sama yaay buggul woon waaw su ma taxawee di sikar rek mu dem daw jël si ma xama waaw mais tey ji nii. Mm-hmm. ba nii nii nii nii nii noonu la ñu noonu lañ bañee ma way après fur et à ñu xam ni kii lii mooy lii mooy domaine am quoi. Mm-hmm. lu bëgg waaw lu mu bëgg la quoi. Mm-hmm. ñu bàyyi ma si. kon daal jaar nga ci cant yi jaar nga ci mbapat yi. simb yi jaar ci simb yi mhm. jaar ci tuur yi ak tànnibeer yi ba tey nga dëggal sa bopp di def ay soirée mais soirée yi nan ngay soirée sa moyen bopp wala da ngeen di ket pour soirée mhm. wala da am ay ay autorité yu lay doole waaw soirée yi moom sama moyenu bopp laay demee mhm. sama moyenu bopp laay demee fii moom xam nga fii àdduna la te balaa ñoo la mën a jàppale foog nga am boo amee rek ñu daw bala nga doon nit koo xam ne ñëpp a ngi lay ñu doog daw di la jàppale. Mm-hmm. mais ba ma dalee tàmbali ba léegi waaw maa ngi Ousmane Sarr nag maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. nooree nii borom mm-hmm. Italie maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom moom dawul taayul moom lu ma xewle rek da si songu def si dooleem. Aline Badara Kebe maa ngi koy nuyu au passage. Poro waaw moom moom lépp lu ma xewle rek moom daf ma yàgg bëgg moom daf ma yàgg bëgg sama premier concert dafa ñëw teral ma jàpp si waaw ñaar ñooñu daal laa xam ne daal ñu ngi may jàppale bu baax a baax ki Saliou l'international ah l'homme des paris maa ngi koy béggee Baye Fall bi borom son bu neex bi King Saliou waaw waaw mm-hmm. ah, le moom mm-hmm. maa ngi béggee waa Boron Zone di béggee waa sen Senzala mm-hmm. waa waa Opintio waa yoonu ndox waaw ah, su ma ju su ma limee tamit damay juum waa mbasu maa ngi koy béggee bu baax a baax waaw ah, waa Rio ñëpp maa ngi leen di béggee waa Rio nag waaw ñoo xewle la le vingt sept te nee naa la nag le vingt sept nag du yomb ah le vingt du yomb le vingt sept du yomb mais Euh, li nga wax sànq ci deux mille vingt quatre bi ñu ne ci nga créé ci nga créé sa groupe ci nga commencé dëggal sa bopp ci soirée yi mm-hmm. di demal sa bopp mais ci biir loolu ci biir soirée yi mm-hmm. yaa ngi tur ay soirée parce que ñi ngi dégg ne euh, yaa ngi duy soirée bu muy fees dell mais yan morceau ngay woy say morceau bopp wala da ngay jël ay morceau jàmbur di ko woy si ci biir soirée bi waaw xam nga olof Njaay dafa ne lépp loo gis rek ak taalibi la mm-hmm. ak lépp loo mais du tee nag maa ngi way samay morceau bopp parce que lu may way si soirée bu nekkee dix morceau la sept morceau yi wala huit morceau yi sama sama sama morceau bopp la. liggéey nga say morceau bopp liggéey naa samay morceau bopp ñaari morceau yi ay morceau ndaanaan la. Hmm. waaw ay morceau ndaanaan la ay morceau Pape Diouf morceau Sidi Diop morceau Ibro yi nga xam ne moom laay nekk di dóor seen sama soirée muy seen morceau. Hmm. mais bu nekkee dix. Hmm. huit sama morceau. Mhm. da nga def single wala defagoo single. waaw defaguñ single mais ñu ngi si projet single bi parce que dafa jot quoi parce que dafa jot parce que lépp loo gis rek da ngay da nga commencé si bismillah jeexee ko si alhamdulilah mais yàlla ngi def parce que jamono bi euh, daaw heure yi doo doon dégg aada. Mhm. daaw heure yi maa ngi woon si bongo ñu may woo du ma si am sa benn kase bu normal noonu. Mhm. mais léegi ren moom maa ngi sant yàlla bu baax a baax. parce que maa ngi duy Mm-hmm. yàlla ngi def mu ngi def gise fermé tous les mm-hmm. samedi dañ koy def gise fermé mu ngi am avancement mu ngi am avancement mm-hmm. waaw mu ngi am avancement euh, macha allah yaa gën a jëm kanam mais ci biir loolu tamit euh, ku na xam na ne aar dafa métti ay way dafa métti nga fas yéene def album comme ni ko ndaanaan yëpp defee nga war a def single def ay vidéo nga nekk xale amagoo ñu la amagoo ñu la jàppale tey nga nekk di def sa carrière mais tey avant loolu ak ci biir loolu tamit yow sa carrière bi maman bii nii ñan nga ci àndal di job waaw sama carrière euh, maman bi ñan laa ci àndal di job mooy sama carrière na maman bi euh, amuma label ma si label. amoo benn label. waaw waaye ba muy métti ñi si doon jàpp ba léegi ñu si jàpp mooy ñi ma joto limee ku si mel ne ay Laye Fall Adama euh, Baye Bakary waa waa estaf fi ñoom ñu si jàpp depuis jamono bu may jamono bu may def programme yi nga xam ne ba doon teg du ma cent kenn du toog ñoom bu léegi ñoom laa nekkal ni ñoom ñoo si jàpp mais amaguma baranloo boo xam ne mu ngi jàpp mhm. mhm. léegi bëgg naa tamit euh, nga ñamal ma benn woy si sa morso wala ñaari woy si say morceau mais avant loolu mhm. comme que jaar nga ci simba jaar nga ci làmb bëgg naa bu ci nekk nga may ma ci benn air ma xool waaw wayu làmb moom waliyaaney waliyaanooy kuy waliyaan dangay daan ndongo mbaa ñu daan la way leen ma baari baari wayla leen ma ñami ñami wayla leen ma nandi faal mobile général bu naw kaay ñu bërey seki seki ni ki mengi mengi yoo fi géej jeunesse jeunesse jeunesse <laughs> xam nga xam la moo tax ma laa ma woy loola mhm. parce que émission bi ndaanaan géwél dañ koy seetaan mhm. muy maire muy paay te dañoo xam ay woy xam ay qualité woy mm-hmm. parce que am na ñoo xamante ne ni kenn mënu leen a nax ci ay woy woy dafa am mbaar mm-hmm. am mbëpp am mbëfër am njolli te jamono ji léegi dañuy faral di dégg ñu ne xale yi woyatul mm-hmm. dañuy ambiance loolu moo tax tey ma bëgg la woyloo jógee nga ci làmb ji ñamal ma ci simb si ma xool simbo njaay gaynde njaay ah simbo njaay del wax ni jongo ma del warni jaayo ah jongo ma del warni jaayi jongo ma del warni jaayu ndeysaan su ngoon jotee nga sangu di lu neexoo waaw ah bu sa jëkkër ñëwee kontaan jongo ma del warni jaayu ndeysaan <laughs> sama yaram commencé na daw wax dëgg neex yàlla eh, ma bëgg lu mel nii maa ngi dégg ay woy parce que man man mii di def émission bi yaakaar naa ne ay woy kenn mënu ma cee nax waaw kuy woy xam naa ku woyantu xam naa eh, mais nag macha allah mhm. li nga woy man nangul naa la xaw ma nag keneen kuy seetaan <laughs> mais sey morso waaw nga ñamal ma ci benn rek wala ñaar mhm. ñu xool wax ñëw na aada booy ñëw na aada doomi Grand Yoff la xale baa ngi nii xale baa ngi nii yaay ba may doog a door na lool am na ñu daan wax aada mi du dem wante am na ñu daan wax aada day dem boo demee ba Grand Yoff sama yaay yaa ngi may ñaanal sama baay yaa may ñaanal déggal Omar Lisa déggal Omar Lisa lu bees bees déggal Omar Lisa waaw déggal Omar Lisa waaw yow rugi foo jóge duma la wax fu ma jóge rugi siis duma la wax sax fu ma jóge loo fa wuti woon golo golo golo golo golo golo golo benn golo naan sa bodi takk sa seen ma benn golo benn bodi moo ma suus loolu mooy li nga xam ne lu bees li nga xam ne xale yi ñu ngi koy loolu te loolu mu ngi yëngal dëkk bi mu ngi yëngal dëkk bi mm-hmm. am na benn ma way nii naan na benn ma way ba naan euh, King Saliou King Saliou King Saliou sama waa jaa ngeen cak cak gis gis ganaan cak cak gis gis ganaan cak cak soo ko dafay neex abay sala ne woon loo bëggati hmm. yaa tax ma wéredi rôle su bëggati yaa tax ma dofati ab malik soo bëggee bëgg na fu mu neex lii ku ne neexul nga naan asib sama nite la sokolaa Pape Malick ñëw na nono jesner laa leen ñawal wax leen Pape Malick Pape Malick Pape Malick Pape Malick loolu moo waral xale yi nag morceau yi la ñuy xaar su hmm. mel ni gulu gulu bi Pape Malick tant que way moo soirée bi du jeex loolu leen di jaral ñu toog foofu am na yoo xam ne sax mun naa leen way sax du ñibbi mais tant que morceau yooyu yi rek la ñuy xaar jaral na leen rente da ngay way nit sax mu ne yow aada ah, nga tuddee ma wayoo ma Pape Malick Mbala Goulou ma leen noonu xam nga munoo way ñëpp rek mhm. Mhm. soirée nekkul ñëpp ngay way mhm. tamit xam nga da ngay way ñi ñi xaaroo beneen soirée mais maa ngi leen di bégee waa Grance ndeysaan donc kon ñaari morceau yooyu su ma la dégg moo moo moo yëngal àdduna sa public waaw moo yëngal sama public xam nga ay woy tamit thème la mais euh, parce que musique ñun surtout suñu mbalax bi dafa nekk quatre ans quatre ans comprendre nga mm-hmm. euh, tey euh, soo gisee sax ma gën a yaatal waxtaan bi mm-hmm. euh, tey ëllëg ci biir mm-hmm. tey war nga mun a gañe lu ne ci Sénégal trophée bu ne mën nga am ci réew mi parce que macha allah am nga voix bi am nga talent bi mais xam nga des fois tamit ci ay way day day day day baax waxtaan waaw muy am muy am thème parce que jamono ji buñ ne ñëpp ñoo bokk même couleur wëy ñoo bokk lu ñuy woy bokk fu ñuy woyee bokk ambiance xam nga ko cela veut que ne amul différence mais man tey fi ma lay xaar mooy euh, damay bëgg tey euh, say woy morceau bu ci nekk mu am thème commencement ba fin euh, fii la dooree fii la jeexee première partie deuxième partie premier pas ba quatrième pas ndax loolu am na say woy waaw loolu am na si samay woy parce que am na morceau yi nga xam ne sax woy ma ko am na yoo xam ne ay mbëggeel la aada ñoone bi mooy sama jaar-jaar loo xam ne dama si way ba ma commencé ni ma commencé aar bi ba nu mu jeexee dama ko si way si sa wàllu carrière fi ma jaar fi ma jaar génnoo thème bi génn ma euh, parce que parce que ay cof la rek laa la may yi nga xam ne aada ñëw na la mais après foofu de am ay solo quoi guitare solo solo yi ba daaneel batterie bi rek mhm. après da wax sa jaar-jaar mhm. Mhm. léegi dafa amaat tamit yeneen morceau yi nga xam ne ñu ngi si moom lay ziwaat tam si soirée Mm-hmm. waaw yeneen morceau am na li nga xam ne waa man ak waa Garaaf nu may dundee ak ñoom. Mm-hmm. waaw way si soirée yi. Mm-hmm. extra mais xam naa loolu moom boo ñëwoon samedi di si mën a xam lu bari. incha allah di nga xam dara. mais nga nekk ci milieu bu doy waar. milieu boo xamante ne nii euh, muy làmb muy musique lu mu mun a doon euh, su ñu doomu Grand Yoff rek day bëri ñoo xam ne euh, dañ naan du dem wala du sori parce que image bi ñu xoolee doomu Grand Yoff ndax loolu lépp yow yaa ngi koy yaa ngi ci yaa ngi ci bay sa parce que tamit ci wàllu public des fois dañuy wax naan booy grand yoo fi ak booy baale yi ñoo bokk même public seen public bi am am am am nu leen tuddee xam nga ndax yow si sa biir euh, musique yaa ngi waxtaan ak sa public euh, maanaam ñu bañ a bokk ci yenn façon public yi nga xamante ne nii day yàqal artiste bi waaw yaa ngi wax lu solo loolu maa si waxtaan ak ñoom tamit ma si waxtaan ak ñoom parce que man sax man boo gisee sax damay dox si mbedd sax ay nit di ma naan booy bi moom la moo tax mënul dëkk ay Ouest Foire mbala mu génn Grand comme que artiste la dama koy dégg ay nit day ñëw ne nga génn fii mais xam nga man dama doon nit ko ne man dama fidèle fu mu dëkk dama mhm. dama fier Grand dama fier nekk doomu Grand même su ma demoon ba tollu haut niveau sax fi laay yeewoo di fi fanaan mhm. parce que ñoom ñoo ma def ni ma mhm. mais Grand li ñuy wax Grand dafa am dafa am violence Grand amul violence. amu ko amu ko non non man gisuma violence Grand Yoff aada buy dóor yi génn sañse def dooleel ko mais xëy na nag xëy na violence moom as tuut la ko waa mais am na ñu am na ñu la koy jëwee. am na am na ñu la koy jëwee. waaw loolu xam nga loolu mënul ñàkk. parce que yonent yonent bi sax. Mhm. jëwee nañ ko zaaru zaaru lu lu ne wax nañ ko ko. Mhm. mais lool tey buñ ko defee bi buñ buñ ñu ko waxee ñun ay doom Grand Yoff tey mun nañ ko accepter parce que Grand Yoff doon milieu bi nga xam ne moo gën a yaatu. mais mais mais lan moo tax ku jóg ne Grand Yoff waaw fa la fa dëkk fa la dëkk xam nga tey boo tëgee soirée sax soo ko defee biir Grand Yoff ñu ne duñ dem parce que lan waaw ñu ngi xalaat leneen ak leneen mais mais mais mais mais lan moo waral loolu maanaam affaire bi yow soo bëggee taxaw ne amul Grand Yoff mhm. ak ñi lay déglu di la seetaan est-ce que xel dina ko nangu waaw mooy lima ma la wax rek Grand am na lu ne mais Grand moo doon dëkk bi nga xam ne moo doon dëkk bi nga xam ne nit ñi dañ ko Grand Yoff dafa bëri dafa rëy moo ëpp moo ëpp yi nga gis ñu yëpp Grand ñi ngay gis ñuy jóge am na ñoo xam ne dañuy jóge Pikine di ñëw turu Grand Yoff mais Grand moo doon dëkk boo xam ne ndeysaan man man du ma wax ko waa lépp lépp lu ñu leen waxal rek xëy na tamit du ñoom dara day am feneen sax ñu ne Grand Yoff ñeneen ñu dëkk feneen dañuy jóge feneen ñëw fii sax def lu leen neex ñu ne Grand Yoff Grand Yoff amul dara mais mais mais lan moo tax waa Grand Yoff war a mën a nangu loolu ku ku dëkkul Grand waaw bi saltal Grand Yoff bi parce que turu bi turu bi fu mu toll turu Grand tey jii nii nii pour aada génn garaaf pour mën a pour mën a tàq mën a dem si kaw dafa yomb mais beneen daal laa xam ni dinaa leen ko dinaa leen ko xaw a kii quoi. Mhm. garaaf comme sawaruñu si wàllum artiste. waaw sawaruñu si wàllum artiste sawaruñu si wàllum art daal sawaruñu si quoi. Mhm. mais garaaf moom daal turam daal yàlla la rek yàlla def garaaf ngay dégg garaaf bu bëri bandi mais garaaf amul bandi amul dara garaaf ay noobul ñoo fi dëkk. naa ak yow parce que ñoo ngi ci cappaandalu émission bi nga xam ne ne temps bi parce que jeex na. Euh, mais ci biir loolu <laughs> jégal naa la lépp amul solo te nagul naa la mais léegi euh, euh, ba ba ban moment lañ war a jot ci single bi ñi nga xamante ni ñu ngi consommé ay woyu aada waaw single bi single bi yàggatul parce que ñun lépp rek ñu ngi demal suñu bopp répétition yeeg lépp suñu moyen bopp la ñuy mais balaa 2024 bi xanaa single bi dina génn waaw waaw balaa muy jeex waaw dinañ dinañ jéem a prouver balaa pour mu génn waaw dinañ jéem a prouver pour mu génn mais daal ñu ngi si tànk yi daal mu si tànk yi te xam nañ dinañ te xam naa ne dinañ ko sonn parce que ñëpp ñu koy laaj dafa jot sax. dafa jot balaa balaa balaa décembre nga nga def benn single. waaw xam nga man lépp rek tamit mooy li ma la wax dama lépp dama koy teg si ginnaaw ki nga xam ne mooy layfaal aadama xam man man maa dem parce que ñoom rek ñoom rek gars yi gars yi ma sonal mhm. mais man sama fit bi mun naa lu ne. mais xam nga lépp rek damay dox ay ni naam ba def lépp bu leen ma ko wax sama staff ngeen dem waxal. Mhm. man dama dem ba. mati si côté boobu noonu hmm. lépp lu ma nit di rek dama koy ne ah lu staff def rek man noonu laay demee quoi ah, mais mais staff bi nag nañ la bàyyi ah. nga génne ah. benn affaire parce que tamit yow li nga jot a job ci ay hmm. morceaux li ma dégg hmm. normalement sept morceaux album la dix morceaux album la te amagum nga normalement ay ay dix wala huit wala sept am na yeneen yoo xam ne liggéey nañ ko samay duñ ko si waaw kon na benn génn exploité ah, benn fa faw nga exploité benn pour réew mi la xam ah, parce que tamit bëgguma nga nekk artiste boo xam ne sa day yem Grand Yoff kese dama bëgg sa tur frontière mhm. dem adduna dem fu ne ñëpp xam kan mooy aada mhm. xam ga single tamit dafa baax def ay ay single def ay clip pour ñi la xamagul xam nga jaay sa temps jaay sa bopp ci la bokk mais tey tey tey tey tey lan lan moo ne sa kanam yan yan yan yan programme waaw programme single yi ñu ngi si single yi mu ngi suñu kanam. Mhm. parce que si lañ nekk nii. Mhm. waaw. Mhm. yeneen yeneen contrat tamit am na yeneen contrat yoo xam ne ñuy waaj a ñëw. waaw xam ne yi génn dem ko. waaw bientôt yàggatul dara. mos nga def tournée. non non defaguñ tournée nag. defagoo tournée defaguñ tournée. yi. soirée waaw soirée moom ñu ngi nii di dóor rek ñu ngi si kawam. kañ nga war a joué waat. waaw samedi bu suba bi ñu ngi Kabana. suba yaay Kabana. suba ñu Kabana waaw. waxal sax dernier mot ak ñu ngi ciy woo ñu ngi ciy invité ak ñi nga tuddee soirée bi xam nga dernier moom ñu ngi siy woo waa Graaf yëpp si woo waa Graaf si woo si àdduna tamit si woo àdduna képp ki nga xam ne tamit yaa ngi bëggee aada waaw di képp ki nga xam ne tamit yaa ngi may jàppale waaw looree ni Ousmane Sarr maa ngi lay bëggee ah kii Saliou maa ngi lay siyaar Alioune Badara Kébé ah waaw pour maa ngi koy bëggee bu baax a baax waaw di santaar sama ñaari waajur waaw waa orchestre waa 15 21 maa ngi leen di bëggee waa staff yi ah. mhm. ngi bëggee ñëpp waa ak waa aada famille maa ngi siyaar ñëpp mhm. mhm. mu ngi bëggee ñëpp di kontaan ci ñëpp di kontaan ci sama rakk ji te di ko ñaanal tamit euh, yoonu ndaw bu yegg yal na la yàlla defal carrière bu baax fi ñuy dégg ndaanaan yi nañ la fa dégg ci barke yu baax nga yaru nga dal nga te te lu raar nag man moom laa gis ci maman artiste boo xam ne du doxaan ak public bi taxaw sa kanam façon xale bu jigéen bu ne ngay gis macha allah nga doyloo sa musique doyloo sa tana xam li nga bëgg xam fi nga jëm yal na la yàlla jàppale euh, ñu leen di jox di daje ñu jox rendez-vous beneen yoon ci beneen artiste ci beneen daanaan mais fi ngay tëjee benn air laa bëgg nga may ñu waa Dakar midi loo ñu may ñu yóbbaale dëgg neexul waa Dakar midi tey ma way leen waa Dakar midi yéenay tendance be képp kuy daanaan yéena ngi kay woo ku si mel ni ndongo caat sama ndaanaan ceer teral nga ma teg ma sama palaas xam nga ni dinaa la way sama ndaanaan saganoo xam nga ni daal sopp naa la Ousmane Ousmane manti fal yaay dese billaay wayal eh, doomu amerika bi doomu doomu doomu midi wayal eh, mbokk mi yaay ndongo caat macha allah bàyyi xel xale bi <laughs> yal na ko yàlla defal jàmm kontaan naa <laughs> ciao ba <laughs>